day tëgg li muy tëgg man ma nokkos yéen ci ngeen bokk c'est-à-dire contact direct la entre man ak oustaz Modou Fall ak yéen ki nga xamee ni moo nekk ci ginnaaw nag di Kia El Hadj Diouf bëggoon naa nga ma koy won de temps en temps sama rakk jooju bëgg naa gis jaabanteem ak ni muy duggee ci internet bi diggante Instagram Facebook Twitter ba TikTok lu mu fa dajale rek daf koy euh, indi bu ko defee ñu jébbal ko oustaz euh, Modou Fall waaye nag oustaz keroog balaa may continuer ambiance bi parce que tey dama fas yéene ambiance ak téléspectateurs yi keroog da nga dugg ci waxtaan bu am solo. muy li imaam Shafi'i doon jàngale. mais nga commencé ko fi ma koy suivre rek foofu nga ko daggee. muy muy waxtaan bu jéggi dayoo doy waar xeetu doy waar boo xamante ni man de fi ma toog maa gën a bëgg yëfi àddina maa gën a doy mais keroog da nga maa daaj loolu fi nga yemoon laa bëggoon nga àggalil ma ci aslëf ñu doog dugg nag ci yeneen point yu important. jërëjëf El Hadj Pape alxames bii paase wax nga dëgg maa ngi doon nettali. jàngale bi nga xam ni imaam Shafii yu doon na ko jàngale. te mooy ay ndénkaan yoo xam ni dénkaane woon na ko moom imaam Shafii yu El Hadj Pape dafa amoon ñu ñëw laaj ko ni ko ñun dañu bëggoon nga jàngal ñu nu ñuy def ba defar sunu àddina. maanaa dañu bëggoon nga jàngal ñu façon dundin boo xam ni suñu ko dundee suñu àddina dana jag suñu alaaxira jag ndax lay baax ci alaaxira dégg naa àddina nga koy defaree àddina nga koy defaree ah. alaaji Pape pour sa ëllëg baax fii nga koy liggéeyee mm-hmm. moo tax ëllëg yowmal qiyaam yàlla dana am audience bu mu am ak waa safara ah bon waaw maanaam yéen ña fay dem <laughs> ndax man safara moom dama koy dégg rek alaa kulli yàlla Oustaz Modou Fall ci làmb ji barki démb seen naa la ci anytime bi. anytime ba. ah bu ba xewoon kër As Ndiaye. loolu damaa fekk Sénégal yi. waa baal ma ak ah, dama laa sosal <laughs> dama xam ne kat fu Baye Ndiaye pikiru nga naan fay doom segam maa gis Baye je me suis dit nga pour bañ presse bi gis ni yaa ngi ci anytime bi yaa mais yaa ngi woon néegu miis Ndiaye. ñaari fan laa ci teg gis na nga vidéo ak Miss Ndiaye naan ko awoy ah, ah Miss ngay am foofu. <laughs> àggalil baal ba <laughs> mais pap maanaam ëllëg yowmal xiyaam yàlla dafay am audience bu mu am ak waa safara léegi nag waa safara dañuy demander yàlla ni ko est-ce que doo ñu may benn affaire mooy dañoo bëggoon nga may ñu ñu delluwaat àddina doon tele benn fan la ñu jaamu la mais ndax dinañ dinañ ko tal dégg naa jaxanam ak safaraam ni mu safe waaw mais diggante wóyyaa yooyu ak yaa ngi may gaañ ndax di nga tala wax yàlla delloo ma fële. ndax mettitu safara. avant ñuy dugg. ah avant ñuy dem. ci biir safara. Ah. yàlla day def ñoom benn échange bu ndaw. Mm-hmm. ñoom waa safara. Mm. léegi nag ñoom dañuy demander yàlla ni ko yàlla est-ce que doo ñu may ñu dem Sénégal delluwaat àddina jaamu la donte la ñaari fan la pour nga baal ñu. waaye kon nga gis ab sénégalais boo xamante ni dina wax yàlla lu rëy lu mu gëmul loo xam ne yàlla ci boppam daan ko ok. ci sunu ci sunu jikko léegi nag Pape yàlla da leen di wax ni bi ngeen nekkee àddina ngeen waroon a profité jaamuma avant bis bii di yegsi si trop am na yonent yu ma yónni woon ci yéen ñu di leen indil message boo xam ne ci man la jóge mm-hmm. ma di leen wax li ma bëgg di leen tere li ma bañ mm-hmm. alam yatikum rusulun minkum hmm. yatluuna alaykum ayaati rabbikum hmm. wa yunzirunakum liqaa yawmikum hada hmm. qaalu bala walakin xaqat kalimatul adabi ala alkafirin <laughs> ay onk laa indaale nag de <laughs> ay onk yu neex loo wax ma ni <laughs> fooyo ba benn diine onk rek laa indaale